xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci Covid 19 bi suñu réew mi la di Sénégal téeméer ak ñeent ñoo amaat tey lii di coronavirus bi lu toll si juróom-ñeent fukk wër am kenn ku nga xamante ne ni rek daal dina si ñàkkat bakkanam ba tey rek ci coronavirus bi bi la yoon ak njiitu réew mi Macky Sall moom nag gannaaw ba mu amee contact ak ka nga xamante ne ni dañu ko testé mu positif ci coronavirus bi daañu ko placé rek en quarantaine si diiru fukki fan ak juróom. danañu ko gën a yaatal danañu wax tamit ci nag rek tiis bu jib ci askanu Sénégal gannaaw ba ñu ñàkkee Serigne Pape Malick Sy mu nelaw rek ni ki tey ci alxames gi ca këram gu nekkee ca cité kër góor gi askan wa nag daal dinañ fay riire di ba ñu yëgee xibaar bu nakkari ana fan la ñu koy denc moom Serigne Pape Malick Sy daañu leen ko xamal danañu wax tamit ci mbirum Cheikh Yérim Seck ak Ngone Thiam ak rek avortement bu ñu ko impliqué moom Cheikh Yérim Seck na waar jamono ji gannaaw ba dossier ba jógee koo rek ca section de recherche gendarmerie bu nekkee ca caserne Samba Diéry Diallo bu Colobane musiba la ñu nemmeeku ca dëkk bu sell boobee du Touba kenn ka nga xamante ni rek da doon saytu la nga xamante ne moo wër jumaa ju mag ja la ñu dal di rek faat daal di koy rendi ana rek lu indi li ni mel daañu leen ko gën a yaatalal ci kanam tuuti lay doon gannaaw yu El Hadj yëkkati di xamle rek ni Youssou Ndour këram la doon nelawee mu koy luweel appartement ba mu dëkk ak Habib Faye si diiru ñetti at ab xaritu Youssou Ndour daal dina siy rek addu waaye nag daa weddi li ni mel ba mu set. vidéo Pawlish mbay bi mooy def buzz jamono ji si réseaux sociaux yi gannaaw rek émission ba mu doon sekk ak ab animatrice ba nga xamante ne nii rek si xeex wu tar la dal di mujjee bu loolu yëpp yembee ñu toftal si tàggat yaram ak rek Premier League bi li moo ciy gën a fës nees tuuti rek ñu faram fàcce bakk ba jib na nuyu nañ leen yéen ñu safoo Dakar Buzz ngir taataan xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree ci suñu réew mii di Sénégal comme nuñ ko tàmm di defee bu ñu sukkandikoo ci ministre bu gàlloo wàllum wér yaram wi ci suñu réew mi la di Sénégal tey juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi test la ñu amal téeméer ak ñeent ñoo ci positif juróom-ñaar fukk ak juróom yi dañu leen wàll ñaar fukk ak juróom-ñeent di ay cas communautaire ñu nemmeeku leen fu ci mel ni Thiès ñeent Touba ñett E Géejawaay ñett Mariste ñett Kër Massar ñett Liberté 6 ñaar Yëmbal benn Mbaaw benn Rufisque benn Grand Yoff benn Médina benn Dalifort benn Wakam benn Ngor benn Ouest Foire benn Sicap benn ak site Cité li mbay benn euh, lu tolloo ko juróom ñeent fukk wër nañu tey ñaar fukk ak ñeent patient ñu ngi sauvetage keneen tamit daal dinay ñàkk bakkanam euh, ci mbas mi niki démb ci mercredi bi ñaar fukki fan ak ñeent ci weer weeru juin ba ñu amee suñu cas bu njëkk ci mbas mi ba jamono ji may waxee ak yéen juróom-benn junne ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñett ñoo fi jot am coronavirus bi ñeenti junne ak téeméer ak juróom-benn fukk ñaar wër nañ si juróom fukk ñeent ñàkk si seen bakkan jamono jilee junne ak juróom téeméer ak fukk juróom-benn ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi dooy yore rek lii di coronavirus bi ñu leen di traité. ba tey rek ci coronavirus bi waaye bile yoon ak njiitu réew mi Macky Sall euh, bu ñu sukkandikoo ci Seydou Gueye ministre conseiller en communication bu njiitu réew mi euh, Macky Sall dañu ko placé en quarantaine si diiru fukki fan ak juróom xibaar bi nag ñu ngi ko biral démb si àllarba gi ci journal télévisé bi dawal ci RTS moom nag njiitu réew mi daa am contact ak rek kenn ku ñu testé mu positif ci coronavirus bi si noonee nag la defee test bi mu waaye nag ngir rek eh, toppandi recommandation médical yi njiitu réew mi dafa dal di rek beru ci diiru ñaari ay bés beroom boobee nag mi ngi ko tàmbale àllarba démb gi ñaar fukki fan ñeent ci weeru juin war koo jeexal rek àllarba juróom-ñetti fan ci weeru def na nag benn weer rakkub njiitu réew mi Macky Sall ñu testé woon ko rek mu positif ci coronavirus moom moomee sax Aliou Sall maire bu Guédiawaye moo ko xamli woon ak tamit rek contamination bakkanu soxnaam si loolee taxoon rek ba ñu interné ko eh, ca hôpital dalal jàmm ci lu tollook ñaar fukki fan laata ñuy xam le ni wër na gannaaw ba mu sax jotee jaar sauvetage ca hôpital principal bu Dakar def fa ay fan. ñu xamle woon ni njiitu réew ba France di Emmanuel Macron day ñëw dakaar talaata guy ñëw waaye nag boobule voyage daal dinañu koy eh, annulé gannaaw ba mu yëgee ni rek njiitu réew mi Macky dañu ko mettre en quatorzaine ndax rek dafa kenn ku ñu testé mu positif ci coronavirus bi bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi njiitub réew ba France dafa waroon a ñëw rek Sénégal ngir visiter Institut Pasteur bu Dakar si lu ñeel réunion wu G5 Sahel ca si diggante ñaar fukki fan ak jàpp fanweeri fan juin lawu ba coronavirus njiitu réew mi ak député bi di Yaya Sow ancien ministre bu yor wàllu wàllum diine di rek Bamba ba la lañu testé mu positif euh, ci coronavirus bi xibaar bi nag ñu ngi ko fësal niki tey Covid 19 bi daal dinay faat bakkan ca ministère de l'intérieur bu ñu sukkandikoo ci E-Média adjudant major di Moussa Diop di chef de cabinet wu jëwrin bii di Aly Ngouille Ndiaye moo ñàkk bakkanam gannaaw ba mu amee woon coronavirus bi ci fàttali def na ay bés ba coronavirus bi duggee foofee ca ministère de l'intérieur contamination benn membre cabinet e jëwrin bii di Aly Ngouille Ndiaye kookee nag moo wàll feebar bi ñu bëri ña nekk foofee ca ministère ba ba tax sax jëwrin bi daal di def test mu daal di négatif waaye nag daa daal di rek beru si diiru fukki fan ak ñeent jamono ji lu war a yemoo ko fanweeri doomu aadama ñoo amee coronavirus bi ca ministère de l'intérieur ñenn ñi ñu ngi leen di rek traité ca hôpital principal bu Dakar maddu jëmale ci xibaar bu nakkari wi askanu senegal daal di ne ñàkk rawatina Tidiane yi ak ku yor kàddu bu xalifa général des Tidiane Serigne Pape Malick Sy moo nelaw tey ci alxames gi eh, ca këram gu nekkee ca cité kër góor gi fare ci Sacré kër eh, moom moomee nag si eh, feebar rek moo ko tëraloon bu ñu sukkandikoo si ñu jege lool famille bi déclaration moom bu mujj bu mu def nag ñoo ngi si doon rek nemmeeku muy xamle ni dafa jaaxle tey rek woo askan wi ngir ñu dellu si yàlla te di koy rek tàllal suñu loxo di ko ñaan taalibe yi nag riirali nañu ca këram googee nekk ca cité kër góor gi di ab immeuble R plus 1 ba ñu yëgee rek xibaar bu nakari bi jaaxle lool ba tax na sax ñëpp daal nañu koy jooy lu ñeel nag ndax si wetu Serigne Babacar Sy la ñu koy denc wa ilaa rek si wetu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ñu ngi si rek xaarandi kaddu bu kilifa diine yi rawatina xalifa général bi Serigne Babacar Sy Mansour ñu ngi leen koy jàll bu baax a baax te koy ñaanal moom moomee di Serigne Papa Malick fa mu jëm gënal ko fa mu jógee. ba tey ngeen di taataan xibaar yi si Dakar Buzz damay du jëmale ci mbirum taskatu xabaar bi di Cheikh Yérim Seck ak Ngone Thiam si mbirum rek avortement ba ñu koy tuumal moom Cheikh Yérim Seck nga xam ne rek la si feeñ jamono ji doy na waar lool dossier boobee nag nekkoon ca section de recherche gendarmerie bu nekkee ca Cheikhna Samba Diéry Diallo bu Colobane mi ngi jamono ji ci ay loxo juge d'instruction gu premier cabinet bi bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ba mu janooweek rek attekat bi Cheikh Yérim Seck bëggula rek àddu si lu mu sekk ak xale bu jigéen boobee di Ngoné Thiam ku koy nag tuumal kepp di moom moomee ngoone moo formé la gannaaw rek ba mu xam leen Cheikh Yérim moo ko ëmbal ba noppi rek jox ko deux cent ngir mu avorté waaye taskatu xibaar bi ne da cent mille yi ngir eh, dimbalee ko ko mu fay luwaas journaliste boobee nag ñu teewoon ca atub 2012 ngir mbirum viol doyen des juges bi di Samba Sall bu tribunal bu Dakar daal ko koy inculpé démb ngir complicité d'avortement ba noppi placé ko sous judiciaire ca dëkk bu sell boobee di Touba lay jubbali kenn kuy saytu rek lu wër la nga xamante ni mooy jumaa ja la fa faat li mel nag mi am ci guddi ga maanaam ba suuf seddee ci dëkk bu sell boobee di Touba plus précisément ci concession Serigne fàll bi moom moomee nag ñu faat dafa ñëwoon rek wax waa joojee ngir ñu jóge ko ci li nga xamante ne ni moo wër jumaa ji mu mer ba futt moom waaja tax rek mu dóor ko gourdin laata rekk mu koy rendi néew ba kookee nag doon saytu lu wër jumaa ji ñu ngi ko yóbbu ca morgue hôpital bu Ndaamaatu si waxtu wa nga xamante ni police bu guy mbind teg teg na loxo ka ko faat eh, si fa mu defee rek jëf ju ñaaw jile ma junj leen ko léegi ci ndorteel li gannaaw kaddu yooyu Lass Ndiaye yëkkati di xamle ni rek Youssou Ndour këram la doon nelawee laata rek mu koy luweel ab appartement ba mu dëkk ak bi fay si diiru ñetti at kii di maane nag ñu koy wax Saint-Louis daal na koy recadré waa ilaa rek daal dinay euh, wax rek mbir mi naka la demee gannaaw ba mu weddiwee lu nga xamante ni moom la patron de 2STV bi xamle moom nag Abdoulaye Mané ñu koy wax Saint-Louis nee na rek ba mu gisee si net bi mu doon lu ko touché lool euh, si noonu mu ne nag moom xaritu benn bakkanu Youssou nduur la euh, ba mu ko tuddee sax kenn si ay doomam nee na nag mi ngi interpellé kii di El Hadj euh, si yooyu les kàddu mu yëkkati ndaxte rek si kër googee wuuteeg appartement bu mu wax Youssou Ndour Habib Faye ak moom Abdoulaye Mané ñu koy wax Saint-Louis ñoo fa dëkkoon si noonu Mané ne rek kii di El Ndiaye daa nekk di wax li nga xamante ne nii dara amu ci te daa xam ne rek ne Youssou Ndour du ko tontu ba tax na rek mi muy gën di wax loo xamante ne ni dara amu ci laata muy naan El Hadj Ndiaye mësu leen a fayal luwaas ci kër googee ñu dëkkoon te mësu leen rek eh, héberger tey naan eh, bu amoon sax waru ko wax ba tax rek mu ne El Hadj Ndiaye diw nitu sutura mu xamle ko moom moomee di Abdoulaye Mané ñu koy wax Saint-Louis ne rek xaritu ba kii di Youssou Ndour la. agression bu am alxames ca wakam ci ab caméramanu 7TV tax na ba direction générale ba fas yéene yóbbu mbir mi ci loxo yoon directrice général ba nag di may Maimouna Ndour si bés boobu la déposé plainte jëmale ko si ñett ñu song employé bi ca section de recherche bu gendarmerie plainte boobee nag ñu ko jagleel monsieur Meng ak rek monsieur Ndoye ngir agression physique ak ngànnaay ak rek yàqub alalu jàmbur ak tamit rek kii jaraaf Youssou Ndoye ngir injure publique diffamation ak association de malfaiteurs bu ñu sukkandikoo ci may Maymouna Ndour Faye caméraman boobee dañu ko yónni woon keroog ca diwaanu Mamel moom Pape Ousseynou Ngom ngir rek mu jëli eh, li nga xamante ne li may déclaration comité de gestion ab juma bu fa nekk si noonu nag la ko monsieur Mbengue ak monsieur Ndoye agressé ak rek ngannaay laata ñuy fokkaati caméra bi rax ci doole rek koñe ko ca mur ba ngir yàq caméra ba mu yoroon gannaaw ba ko ab animatrice seeti jee këram ngir rek def ak moom ab émission moom Pawlish mbay émission boobee nag fa mu mujjee neexul ndaxte rek ci xeex bu métti la ñu mujjee gannaaw rek ba mu ko waxee borom ñaari tur Pawlish daal di koy araftu waaye teewlu rek mu insister si li mel si noonu rek la Pawlish jógee daal di koy fëgg ab kurfeñ laata rek ñuy mujjee di xeex xeex bu métti lool nga xamante ne ni rek fa la émission ba dal di ndar mu doon nag li nga xamante ne ni doy na waar lool tàggat yaram la koy tëjee ak Premier League bi ba ñuy janoo ko Crystal Palace occasion bi rafet na lool ci Liverpool Jurgen Klopp bi Reds yi nag daal dinañuy amati ndam si kaw Crystal Palace gannaaw ba ñu ko dooree ñeenti bal ci dara loolee tax rekk ba équipe Klopp bi gën a jege tiitre bi